mbokku téléspectateurs yi ni seetaan man la asbara maa ngi leen di jox dig daje ci xibaar yi leen di jottali ci kàlla may Kocc Barma xibaar yooyu nag dina leen ko dégtal ci yoor yoor ak bu juróomi waxtu jotee ci ngoon ci RTB la télévision